sàll waxtaan waam solo ci kanam tuuti ñu dellu si waat jërë ngeen jëf. booy <laughs> dem nga bako fi. Oustaz euh, Aliou Sall euh, Pape Less Dibala fas yéene waxtaan àndal ci euh, waxtaan wi. Mhm. daañu waxtaanee koor gi. Mhm. commission beeg ak la xew fële ca ca mhm. waaye dèjà ci ci koor gi Oustaz. am na ñu ne dañuy woor. dañuy wari plutôt mhm. ndax gis nañu weer wi mhm. euh, ñenn ñi di euh, door séntu bi tey euh, xam naa ne koor gi ci ñaari bés mhm. loolu metti la waaw alhamdulilah lu ñu metti la ñun ñëpp ñu dëkk réew mi d'abord waaye dañoo yëgagut ni metti na dañoo xam ne métti na mais yëgaguñ ni métti na ndax doyutum xëy ñu réglé ko comme duñ ci xëy nag du réglé wu. ndax dina neex a réglé. waaw ndax neex naa réglé parce que comme ñaari commission ñoo fi nekk ku ci nekk wax ni ci ci ci question bi laay laay def ki ni ci question bi laay def te ñaari question yu bëri na nañ leen dajale ñu waxtaan ñu tànn ci benn njëriñ ñu bàyyi leen. xam nga lu tax ma ne ndax dina neex a réglé. koo mm-hmm. xam ne nii ñoo dañ ne ci réew mi la ñuy séntu. Mm-hmm. ñee di ko xoolee ba ci sous région bi. lu mel ni Niger Côte d'Ivoire Mali. Mm-hmm. ñu dégg ko fa ñu ne dañuy wori wala ñu dégg ko fa ñu ne dañuy woor mm-hmm. est-ce que loolu dina neexaree ki nga xam ne moom danay moom du nañ ko wax du jéggaani loolu lay tuddee question dafa am ci séentu weer benn question bu wax ne fu mu feeñu ci àdduna si mën na mën na noo woor ne fu mu feeñu ci àdduna mën na noo wori loolu lay benn question bi benn bi ne déedéet dañ koy xool sous région bi wala mook ci ci région bi léegi nag ñaar ñooñu ku fekkee ki wax na li kii wax na li buñ bàyyeeku ne dem nii rek la ñuy doxee ba yomal xiyaam mais man leen woo ñoom ñaar ñu taaj sëriñ see koy fekke ak ministre bi war yor intérieur ñu toog ñoom ñaar ku ci nekk wax ñu seet bu ñu ci gën a jubu ñu tànn ko bu ñu ko tànnee nag ba ci des ñu éliminer ko mais li fekk defuñu ko nii rek la ñuy doxee. mais ndax loolu d'ailleurs du problème bi bëgg ko yemalee ci affaire sëriñ rek ndax waruñ ko ubbil aussi scientifique yi. ba déedéet c'est-à-dire man damaa bëgg wax rek nañ ko woote rek laa bëgg wax. scientifique mën nañ cee ñëw astrologue yi mën nañ cee ñëw sëriñ si mën nañ cee ñëw association islamique mën nañ cee ñëw ñëpp ci ñëw rek loolu laa bëgg a wax ba ñoom dëcc sax dañu ñëw journaliste si ñu toog waxtaan yéen lu tax ngeen tànn lii ñu exposé ko jëlal ko temps bu ñu noppee ñu ne yéen nag lu tax ngeen tànn lii bu ñu paree réew mi ñoo naan bii moom bii lañ tànn rek ñu dem Jurbel mooy njaarim njaarim mooy Jurbel mais nañ d'accord ci tudde ko wenn tur rek mu jaxtaan <laughs> est-ce que oustaz bàyyi ñu mbir mi mu traîner ndax benn commission fi nekkoon muy indi coow chaque fois ñii woor tey ñii wori tey euh, ñii woor tey ñii woor suba ñii wori tey ñii woor ñii wori suba ba dem ba beneen commission juddu. est-ce que ci woon teel a jëg. bu ah, dañoo bàyyi mbir mi muy yéex ba jur lii. waaw dañ ko bàyyi mu tere ne ndax. Mhm. question ñaari question ñaari commission yi bu ci nekk ni mu juddoo. Mhm. waroon na juddoo neneen mu dàq ni mu juddoo. commission bu njëkk nga xam moo fi nekk crédibilité bi mu amoon wala ni mu juddoo woon. mooy ñu toog nii rek ci benn émission am yàgg rek ñu ne war nañ ko def rek ñu def ko ñoom ñuy bàyyi muy dem di bàyyi muy dem amul amul congrès amul daje amul nangam amul assemblée générale muy dem rek léegi nag loolu daal di jàpp aw nit daal ne kon ñun li ñuy génn ci woor ñi ñi woor ñun tam nañ wut suñu commission ñooñu tam daal di wut benn commission te du ñaari commission rek parce que daanaka six wala sept commission ñu ngi ci penc bi. waaw bi nga xam ne nii moom moo gën a yaatu. Hmm. tey soo déggee coow li ci nekk ndax. dina crédibilité bi bi mu waroon am dëgg dëgg dëgg la ñett di koy xëccoo ndax di nga jàpp ba léegi nii ñooñu ñu ngi ak crédibilité. waaw xam nga euh, déedéet. juddu ba sax amu ko woon. crédibilité juddu ba sax amu woon crédibilité boobu. parce que juddu bi mooy lan ay nit daje nañ ci benn émission wax nañ ci weer wi am ko nekkoon nañ ci jóg liggéey ci su bëggoon juddu ba am crédibilité bi mu war a am. mooy su boobaa dañuy woote nag ndaje. ki ko woote du wax ne maa koy jiite bu ñu ko dajee ba tànn kenn ne ko yaa koy jiite dana am taxawaay boo xam ne bii mooy ëpp bi mu am mais nag loolu defuñu ko. kon daal mosul am crédibilité. ah yaakaaruma ko de parce que man man de dem naa ci deux fois bu deux ba trois fois yoo xam ne <laughs> maa nga doon fekk la ñu ne ñu liggéey. kon doo ci tënku quoi. ah ci laa tënku parce que mooy national commission national kon ci lay tënku. su métteeg su jafeeg su naqari ci lay tënku parce que mooy commission nationale te ay nationalistes si lañu. waaw coow li ci jib nag tey noo ko gisee. coow li ci jib mooy mënoon na ñàkk am bi iyaan génne àdduna ñi nga xam ni ñoo ca nekk te daan teewee ka ña ko bokk na yooyu ñoom nanu toog weeri feeñ na jarul xëccoo. waaw jarul xëccoo nekk ci li waxi jàmbur jarul kaalawu <laughs> ah weer wi feeñ na. est-ce que dafa am lu nekk ci ginnaaw est que dafa am benn enjeu bu ci nekk est-ce que xaaj def ci nekk lan moo xew loolu jarul xëccoo. wax wax nañ ko mais le problème aussi mooy ñoom xamante na ñi ci doon liggéey bi fi fi euh, Ahmed Iyane nekkee wax dëgg yàlla ak ñam ci àndaloon xamante nañ. waaw xam nga dafa am lu ci nekk mooy ku mel ni Bouchra kera bañ koy taxawal ca rajo Sud FM def caa def ko fekke woon mu ànd ca taxaw ga moom oustaz Tayib Socé ak Yaan. ñoom ñett daanaka mën nga ne ñooy séqoon taabal ja micro ya doon wax ba affaire bi taxaw. waaw mais est-ce que année yu bi yi ci topp yëpp yëpp yëpp yëpp actif na yëngu mi ngi ci doon yëngu comme na mu. na mu na mu ci laa jëm si. bi ñu taxawalee loolu ba nga xam ne ñu ngi koy doxal am na loolu xëy na peut-être xaw ma lu mu demee waaye génnoon na ci tukki woon na demoon na waaye daal teewul. kayit yu njëkk yi bu fekkoon amoon na tax toogaay yu njëkk yi bu fekkoon amoon na moom daa bokkoon ca toogaay njëkk yi ki nga xam ne mooy Imam Diène bokkul ca toogaay bu njëkk ba waaye nag ci toogaay yu mujj yi daf doon toog di ànd ak yaan ñu ne ci yëf ya weeri feeñ nag nangam donc su kee waxee ne lii moo tax ma toog kii wax ne lii moo ma toog kii atte moo war ñoom ne leen xee ñu nag loolu lañ dul am mooy suñu réew mi état daa ragal diine diine ragal état waaye am na lool ci penc mi goom yaa leen yilif moom leen wala boog moom penc mi wala boog moom yëf yi dangay ngay woote ndaje tëdd njaaxaan déglu ñëpp buñ paree da nga ne xee kii yaa tooñ wala nga ne xee kii yaa ne ci dëgg jàmm na ñooy ñu dem waaye li fekk dañuy bàyyi rek comme laisser faire ñu <laughs> ñuy def nii comme ça muy traîner wu fii lañ jëm tey fi nekk nii plus clairement da nga jàpp ne état bi dafa démissionné comme ne nga sax ni euh, commission boobu bi muy juddu juddun bi jaarul yoon te pourtant ñoom la état bi reconnaître ba ñuy dajee sax ci màkkaanu ci bërëb bi nga xamante euh, état dafa wàll si rek mm-hmm. loo xam ne. yaa ko loo xam ne yaa ko moom yaa ko war a def. Mm-hmm. waroo caa wàll si. Mm-hmm. bu déggee ñu ne commission bi taxaw ne te muy penc mi nga xam ne lu nam na ci juddoo. fii ma toog ñi rek nit wax na ma ne ma ah, man kat sama sëy bi nar naa tas lu xew parce que sama jëkkër daa wari tey te wariwu ah waaw nee na ma nag il faut nga wari ma a deet addunaa ngi tukki donc loolu tey yooyu yu bare bare bari la ci penc mi ñol ñol ji commentaires yi journaux yi bu subaa bu la RPI jàppee tabarkàlla du kenn la ko waaw mais mais mais est ce aussi euh, Oustaz nekkul ci ci taxawaayam gi gi war xam nga liberté de culture constitution bi moom moo ko garantiral citoyen bu ne xam nga yow su la neexee tey jile nga woo sa ñaari nit nga teg sa commission ne ànduma ci bu national bi ànduma ci bu coordination bi ànduma ci mais sama bos laay def tey laa gis sama weer ci tey laa julli mais état lim mën mooy garantiral la nga def yow li nga xam ni moom moo dëppoo ak sa gëm-gëm. waaw mais euh, gis nga su ma sama loxo nii fi mu la samay sañ-sañ yem fi mu yem. Mm-hmm. dafa am loo ne penc mépp a ko bokk. nañ ko boole penc mi yëpp bu état jàppale nag ku jóg rek loola neex defal suba booba tam <laughs> anarchie day am rek lu gàtt gàtt rek mën nañ ko encadrer jàpp ne lii daal moo war a am na am. gis ngeen sunu dëkkandoo bii di tudd yaay jàmme da ko réglé réewam daa xëy rek réglé wu. <laughs> may nam ko réglé woon aussi. ah non te baax na ni. ah baax na kat. mais fexe na fexe na xañ la sa gëm-gëm moom jàpp moom. déedéet kenn gëm-gëm. non lii laay def ñëpp dañ ci war a tënku. de waaw léegi dégg nga lax mu ne la. jurbel mooy njaarim njaarim mooy jurbel léegi nanu bu ñu waxee taxaw nan nañ léegi jurbel lañ ko tuddee amuñu problème njaarim a ngi fi ba léegi. léegi suñ wax suñu waxu loolu tey ñu ne léegi commission bi kat ñii nii lañ ko tëralee nii la su boobaa waxuñu kenn bul wori waxuñu kenn bul woor mais nag dem ci rajo ba nag ne ñun jullit dañuy wori tey wala jullit dañuy woor tey ñu koy defandoo loolu loolu mooy dindi ko mais suñu suñu séntu weer bi comme neex ne man kat dégg naa ne Nigéria feeñ na fa damay woor waaye nag su boobaa du doon lu ñu annoncé nag ñii annoncé fi ñii annoncé fi lu laa bëgg a wax anarchie boobu mën naa ñàkk. waaye comme neex nag léegi comme tey jii comme neex man nga ne man kat commission bi li ñu wax gëm naa ko damay wari mais waril tout waaye nag su fekkee ñëpp ay sañ wax ne tey la ko rek gi ñëpp sañ wax ne tey la kumte gi loolu mooy li métti waaw loolu rek la. responsabilité état bi nga nga tudd kon àndoog njiitu réew mi ne woon ay jamono ay at ngi nii yoonu yoonu état euh, nekkul ci weer. yoonu état nekkul ci weer ah kay état lépp na ci moom bu ñu ne yoonu état nekkul ci weer yoonu état nekkul ci tabaski yoonu état nekkul ci nangam pourtant aj màkk yoonu état ngi ci aj màkk état koy diriger moo koy jiite. non mais parce ah que koy organiser aussi fa ñuy dem. waaw ah, nag su boobaa. loolu aussi da di euh, relation entre ñaar ñaari ñaar réew ndax da nga jógee réew dem ci réew. <laughs> Omare Malo rek Omare Malo rek. <laughs> oustaz ñu euh, addu ci beneen poñ. Mhm. li xew Palestine diggante Palestine ak Israël. Mhm. lu ëpp fan fanweeri nit ñàkk nañ seen i bakkan. ci red yi nga xamante ne ñooy amee Israël. lépp dooree ci violence yi nga xamante ne ñoo am ci mosquée Al Aqsa. wallaay ñi ñu ciy dégg bëriwul ñi ñu ciy dégg fan yi xëy na sax ñoom ñooy. Euh, ñi nekkee ci diine. waaw est-ce que euh, xel mën naa nangu lii xew Palestine réew yi noppee ko. laaj nga laaj ba am solo te itam lu métti la ci penc mi ñu sore ak ñi jege mais dëcce Israël daa am najaay te Palestine amuñu najaay najaayu Israël mooy Amérique. ñoor na nekk najaayu najaayu najaayu Palestine mooy arabu saoudia wala jullit yi. wala mu am ay najaayu noppi. najaayu ba tey ba tey baax na kon am nay najaay mais najaay dañoo noppi ñi Erdogan mel tey fi ne su amoon ñu ko appuyé léegi te yëfi dex. bu wér keroog ba ko Faysal di di di métitlu nekkoon ca Makka di ko métitlu dafa daal di woote ndaje mag keroog la Océan yu juddu malheureusement. li nga naan dafa judd ba noppi faatu xaw ma ne moor nan moor ne moor ne <laughs> daanaka moo ci am donc ñëpp la naqari léegi nag àdduna si dafa mel ni Palestine wala sax jullit yi foofu xanaa dañoo bokkul ci du ci lom ba droit de lom di leen seetaan <laughs> est-ce que nous pas des hommes bu fekkee nu lañ ko waxee seetaan mi dafa métti parce que àdduna jàpp nañ ne am na ko leen napp ko bu ne xuux ñëpp war a daw ba du noonu suñu borom daa wax ne bàyyi leen di di di daw ay ay intérêt ba dugg ci lu tax ma ngeen jur sama mer ndax su ma leen meree intérêt bu ngeen mën di am bu leen seen mbokk dencee ngeen rëcc ko te gaa yaa ngi denc de. waaw mais pour man problème bi est-ce que du jaafusu aussi jullit ñi soo xoolee Palestine fu mu nekk Jordanie mu ngi fi Syrie mu ngi fi Égypte mu ngi fi dégg nga. ba Arabie Saoudite da nga presque. dindil presque ji daal def direct ne yaafu su julli di la. ma ngoog ok léegi ndax duñ leen delloowaat problème bi ah delloowaat c'est-à-dire. tey jii la su neexoon Arabie Saoudite mbir mi dakk ah bien dégg la wax dama laa dama doon junj léegi ne seen na jaay ci loolu laa ci jublu mooy fi mu ne bu bu bu bu bu caaya tooñee caaya caaya takku caaya ñëw ne ko bàyyil tooñ gi tooñ gi dakk Euh, dafa am ku ñu naan wax imaam Khomeini daa ngeen ko dégg. Oh, uh-huh. uh, daa wax ne ñun ñëpp buñ doon suñuy satala ñun ñëpp buñ doon suñuy satala buñ demee sotti ko Israël képp mu lab kon na fa fii ma naqaafu ragal gi gañ ba kañ la léegi nag nee na ragal Israël fi ne bu ñu toogoon tey daat ne bu fi kenn ti sooleeti bu subaa ñu tàmbalee ti sooli te penc mi di naan bu fi kenn ti sooleeti ñëpp ne xew donc ceetaan mi métti na ñi fi nekkoon bu njëkk doon ko defendre buñ jógaatoon fi ne mu dañaat Faysal ca la bokkoon Assane deux ca la bokkoon lu dëgg ñu di ko ñu di ko doxal lu tax dañoo lakkoon jàkka ja jàkka ji tey lañ ko lakkoon al xam nga bi ñu la image yi léeg-léeg man du ko nangoo seetaan parce que fekk ku julli lal ak sa jaadaam nga nga bule ko ni ñu fubal ni ñu ni ñuy tiiree penalty adduna si yëpp teg seen bët barki démb ba ñu reyee américain ba ca Amérique adduna si yëpp jóg. waaw. gars yi bu ñu fa bal sax dañu sukk seen bëtu om pour wane ne affaire bi mu ñu naqari ba tey. Mhm. def naa ba démb sax ñu koy def. mais oustaz. Ah. sunu réew par exemple jaar jaar gi ñu am euh, Palestine li ñu seqoon ak Yasser Arafat. Mhm. Euh, ñuy euh, faat ay nit. Mhm. di leen bun xataal. Mhm. jël seeni euh, suuf. di leen en fait colonisation bi continuer waaw condamnation de principe sax amul ci Sénégal. te pourtant jamonoy Charlie. da da dañoo dañoo jóge woon Sénégal fii dem dem dox yi France. li la jaaxal a jaaxal ñëpp mooy najaayi najaayi Israël rek. <laughs> rek loolu rek mu daal tënk bi daal booy moom am na najaayam moo koy taxaw ñee amuñu najaay kenn du leen taxaw waaye nag bés ngi ñëw ci bés yi ndax rey ak yooyu du du du solution àdduna rey du ko solutionné déedéet sunu borom nañ ko bàyyi mooy rey te nun ñuy teg ci taabal ji di waxtaan ak nag di waxante dëgg te xoolante ci bët loo ko mooy dara du fi dox te yàqu àdduna ñun ñëpp lu ñun ñëpp ko yëg. mais mais état suñu état bi nga xam ne ni comme ni ko Georges waxee déggaguñu leen euh, mais état yow la man la Georges la keneen la mais euh, yéen par exemple nga xam ne da ngeen nekk ci ay euh, kuréelu musulman déggaguñu leen ci. waaw xam nga noonu initiative xam nga noonu suñu suñu suñu jóg dañu duñ du ne duñ ne bëreet rek jog duñ suñ duñ duñ ne bëreet rek jóg waaye. saa bu dara xewee lu gàtt gàtt nun danañu daje daje sunu barab woo fa ñëpp ne leen lii naqari noonu def nañ ko ba tey grande mosquée def nañ ko ba tey beneen barab te danañ ko defaat def nañ ko fii ci euh, l'obélisque la xaw ma. ci Colobane waaw danañ ci dellusiwaat parce que lii ñun ñëpp la naqari te daañ jógaat du du caagi ne na Alioune Sall mooy daal di jóg rek na acca mais comme dafa am dañ ko tëral ci nor norme kii mooy jóg na nu jóg leen nu jóg ñun ñëpp ñu jóg. te incha allah dinañ ci jóg ndax naqari nañu ñun ñëpp ba ca kanam yàlla. xanaa ci korité bi lu tee nag xanaa ci korité bi bokk dañu dañu ñaanal Palestine. kan ci ci gi ci. ah di tàmbali la parce que xalifa yi na ci penc bi ñëpp ah, ah, kii nañu ko. ñu ko waxati. yëkkati ni seen kàddu kon nekk yëkkati ni seen kàddu ñaan yaa ngi ci leneen na ngi ci kon tàmbali na incha allah te it kanam la jëm yaakaar naa ne waaw te it lu waay sori sori rek yëgal na yaa ngi ci biir ker bi Faris di xeex ak Room saxaaba yaa ngi nekk ca Makka ca Madinatu teewul dañu ne dañuy far kañ faral ñu gañe ko ba mu metti leen sunu borom ne leen bu ngeen góorgóorlu benn yoon ñi ñooy gañe waaw xulibati Roomu fi adna al ardi wa hum min baadi xalibihim sayaxlibuuna mais oustaz bu lii continuer est-ce que réewu Palestine sax du mujjee réewu ci carte bi donte sax. ah nekku ci <laughs> ah kay. ah di nekku ci par rapport à. Ah, reconnaissance bi nga xamante ne ni ñu kiyee Sénégal. su ma ko doon misaal te yoroon tableau. Mm-hmm. dama naan bi ñëwee dañ leen a joxoon dix pour cent ci missal dese quatre vingt dix fi mu nekk nii dix lañ dese. ñee ñi yor quatre kon mën naa dem ba jeex. mais est-ce que aussi du du du problème existentiel boo xam ne ni aussi moom moo am. ci pale ci ci israéliens yi. maanaam euh, dañu gis ne palestiniens ni ñuy màggee ni ñuy population bi. Mhm. Euh, ni muy màggee bari na ëpp na jéggi na dayo mhm. te dafa ñoom dañu am sentiment que ñii yéenewuñ leen jàmm parce mhm. que toog ñoom ñaar ñu ñu waxtaane ku ne mën a dund ci jàmm ak salaam gënul dañoo toog a toog toog ba ki nga doon tudd léegi muy arafaat yal na ko yàlla yërëm dañoo toog a toog ba is arafaat mënatut a wax dañoo toog ba mënatut wax toog du ko régler toog du ko régler laxasaayu takk ndigg jàkkaarloo dong nga koy régler xaw mën a kañ lay doon waaye say ati yow yal na yàlla dimbale. jërëjëf <laughs> Oustaz Saliou Sall. bala maa jeexal maa ngi nuyu sama sama doom nday eh, ka tuddati waay nekk fële ci TFM. Cubb. ah Astumben Cubb Astumben Cubb. ngeen maay moom ma nuyu ko. ndax sama doom la <laughs> <laughs> di koy sàggal baax a baax. di nuyu Alaaji Asan di nuyu waa kër gi yëpp. la ko ba ci suuf lu jub ci wax ji sunu borom la bu jubut man mii na nu ko korite ci jàmm. koor gi dem na bàyyi nu fi su dellu saat yàlla ñu fekk ñuy wari tey yàlla na yàlla nangul leen ñuy wari suba yàlla na yàlla nangul leen yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu déwénati oustaz Aliou Sall jërëjëf euh, Pape Mass euh, Diba euh, di nuyu Astou Bène Thioub ak ña nekk ca TFM yëpp ñu yendoog jàmm di la jaajëfal jaajëfal euh, Pape bes naka noonu delloo nuyoo Oustaz Alioune Sall sunu kilifa sunu pàpp sunu xarit di rafetlu euh, taxawaay beeg teewaay beeg jàppale bi ci euh, liggéey bi ak xam-xam bu màcc bi naka noonu waxtaan waa solo bi jërëjëf ñu tamit ñu dellu siwaat fii di leen jaajëfal chers téléspectateurs ñu fas yéene door ñu tamit suñu ñaareelu taasu xibaar ak Serigne Cheikh ci aw